benn waxtu ci télé Futurs média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun xibaar diggu bëccëg yi li ci gën a fës ginnaaw dialogue national bi beneen dialogue ñu sumb ko eh, ni kii tey ñu jagleel ko code électoral bi jëwriñ bi ñu jénk wàllu biir réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo moom ma ko jiite eh, parti politique yépp nag daanaka teew nañu fa ba ci sax ñi nga xamante ne eh, ñëwuñu woon ci waxtaan bi njiitu réew mi woote li leen gën a yitteel nag bokk na ci xool daal ni ñuy def ba carte d'identité nationale. carte électeur yi euh, doon benn laata boobu euh, boobule nag moom Abdoulaye Daouda jàlloo jot naa xam ne ne dinañu wax ci parti politique yi ak ni seen lim toll euh, fii ci Sénégal gëstu ci seen i mbir xool koppar yi ñuy jëfandikoo fi muy jógee ak yeneen i mbir forum civil moom rafetlu na ko waaye li mu bëgg moo di ne buñ ca yegsee nañu dem ba mu jeex ci liggéey bi bañ cee am xaj ak seen gare routière bu Rufisque ubbiwaat ay buntam ginnaaw fukki at comité de gestion bi di sàkku ci borom oto yi ñu dellu ca gaar ba loole it bëgg nañ ci njàppandal uh, kilifay gox ba tey di di bés bi ñu jagleel archive ci àdduna wërngal képp rédaction bu Télé Futurs Médias uh, taxaw ci jafe-jafe yi nga xamante ne étudiants yu génnee EBAD ñu ngi koy jànkonteel ngir rek am uh, xëy Mamadou Diarra di ki ko jiite jamono ji boobule école ne entreprise yi waaye itam nguur gi da cee jàpp bu baax baax leneen itam lu ñu nemmeeku moo di ne ñoom it farataaluñu lool lu jëm ci wàllu archive moo ne de lu am solo la bu ñu sukkandikoo ci kii jiite bibliothécaire yeeg archiviste yeeg euh, documentariste yi nekk fii ci Sénégal dinañ ci am professeur dinañ ci am gan professeur Mbaye Thiam lay doon moom euh, jot na fee jiite EVAD professeur maa lay nuyu. maa lay wax ci lu soxal basketball ak juróom-ñaareelu journée play-off ASC de Dakar moom moo dóor Saint-Louis basket club loole loolee mi ngi xew euh, ni ki démb li ci yéenekaay yi mooy ndar kepp yi lee xibaar laata loolu bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yàttali li bokk di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru diggu bëccëg yi ni ñu ko junjee doore ko ko waxtaan yu ñu la tey code électoral bi fii ci Sénégal jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Abdoulaye Daouda jàlloo moom moo ko jiite parti politique yu bëri teew fa Alassane Ba moo ñu fa teewal Alassane maa ngi lay nuyu. Fatima. lay nuyu. Fatima lu ñu mën a jàpp ci ndaje moomee. waaw mu nga kon euh, kii di euh, Abdoulaye Daouda Diallo nag moom moo jiite euh, waxtaan yi ñu sumb tey mu aju ci dialogue national bu président de la république wante woon ci mais huit mai bi ñu génn tey nag Abdoulaye Daouda Diallo nga xam ne moo war a waxtaan yi tey waxtaan bi dafa jëm ci wàllum processus électoral muy càmbaraat comme ak fichier électoral bi ñu réadapté waat ko parti yu bëri teew fi muy ak société civile ak ñu mu soxal ñoom nag teew nañ fi ku nekk xeet joxe ay euh, proposition am Abdoulaye Daouda moo njëkk a joxe ay proposition am ubbi waxtaan bi euh, ngir euh, waxtaan bi mën a tënku ay poñ yu bëri génn na fi wante ñenn ñi jotul woon teew ci waxtaan ndorteelu waxtaan dialogue national bi ci parti ci parti teew nañ fi ku ci mel ni waa réew mi bokk gis-gis ay ànd jëf ñoom teew nañ fi Déthié Fall moo ñëw teewal kii di parti réew mi moom nag li muy ñaawlu mooy kii di moom sax di euh, Mamadou Diop waa li ñu wax moo ne kii di Abdoulaye Daouda Diallo bu ñu sax ak ñeneen tamit kii di Abdoulaye Daouda Diallo warul jiite waxtaan yi wante tamit warul organiser ay élection ci biir réew mi ndax moom ci euh, bi di APR la bokk ba noppi itam nekk ministre de l'intérieur donc moom ci boppam euh, sonam dafa inapt tey maanaam moom warul jiite waxtaan yi bay tamit organiser ay élection format bi tamit ñaawlu nañ ko maanaam ci salle bi nga xam ne ñëpp toog am deux minutes wax ak joxe si xalaat ci ci euh, waxtaan yi ñaawlo nañu li ni ay proposition nag jot na fi génn li ci mel ni comme ay bulletin unique wax nañ ko fii pourquoi pas ñu réintro ñu introduire ay bulletin unique euh, ay commission bi tamit fukk ak fukk euh, juróom membre yi ñu jéem a xool ba mu am équité ñu organiser waat parti politique yi rationaliser ko jéem a xool tam lii di financement mm-hmm. Alassane baax mu mel ne jafe-jafe moo am ci bu mu jokkoo gi di ngeen ko dégg ci suñu yeneen jotaay xibaar dina ko gën a yaatal itam rationalisation parti politique boobee mu tudd ci la ñuy yegsi ndax euh, moom Abdoulaye Daouda Diallo moom la bëgg ne parti politique yi euh, faaw ñu taxaw ci seen i mbir xool koppar yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo fi ñu koy euh, jëlee loolee nag forum civil rafetlu nañu ko bu baax a baax waaye li ñu ci bëgg rek moo di ne bu ñu yegsee ca liggéey bi nañ ci dem ba mu jeex bañ cee am xàjj seen ñu teewlu ci ab reportage vous Nafissatou Sylla xalaat sooginu parti politique yi organisation syndicale wala non gouvernementale di ab doxalin bu bees bu ministère de l'intérieur daal di taxawal ngir Mouhamadou Mbodj bu forum civil nag mesure boobee du tey lañ ko mbébét te yéex na sax ci di ko matal. daf ko yéex a def yoon jox na ko ko moom ak ministre de l'intérieur yi ko jiitu yëpp am na parti yoo xam ni waruñu woon noonu sax taxawal parce que dafa safaanoo ak charte réew te parti yooyu xam nañ leen. ñu jàpp nag ni mesure boobee li ko soxal du leen lu dul soppeeku yu am ci biir statut parti politique yi. composition bureau yi ak ki tamit saytu bu baax xaalis bi ñu jëfandikoo Mouhamadou Mbodj nag di insister ci mbir mi di wax ni affaire bi dañ ko war a topp ba mu jeex. mooy ñoo xam ni dañu ne la li nga wax ci sa statut charte yow parti bi te nga indi ko ministère de ba ñu tax ñu nangul la sa nekkin da ko war a respecté boo nee da ngay def congrès at bu nekk da ko war a def. boo changé direction bi secrétaire général bi changé da nga ko war a signifier dañ la wax tam xaalis bi ngay doxalee sa parti da nga war a def état financier yi at bu nekk nga jébbal ko ministre de l' intérieur ministre de l' intérieur ñëw saytu ko yooyu bu ci amee manquement rek yoon may na ministre de l' mu tas parti bi. forum civil ba tey di artu kii di gouvernement bi. ñu def ko ak xel bañ ko utiliser tam parce que diw farul ak man daf may attaqué. moo profité wàll ci éliminé ko loolu tam esprit boobu baaxul ci ki ñi dénk réew dafay tëddee ndey seex la war a doon bu ñu xool ne syndicat yi dañu lakkale temps yi grève yi dafa bari gouvernement bi dafa sonn ñu bëgg a jublu ci loolu. gannaaw sax formation politique yi mesure boobee concerne na i tamit lii di syndicat yi ak bépp bu mu ci mënti doona ñu jàpp ne nag tàmbale nañ ko ñaari at ci ginnaaw ak ñii di waa société civile. ci wàllu njàng meek njàngale mi la ñuy yegg si wax ci ñàkk déggoo gi am diggante nguur gi ak syndicat jàngalekat yi président conseil départemental bu Diourbel moom li mu bëgg moo di ñu amal ab bër bu ñeent fukki fan ak juróom maanaam ñu toog ab diir boo xamante ne grève du am dara du am su ko defee ñu mën a jeexal cours yi naka noonu itam jeexal euh, li nga xamante ne moom moo di examen yi yooyu lee kàdduna nag mu ko yëkkati euh, ca ba yi daal ubbi ab collège d'enseignement moyen fële ca région bu euh, Diourbel Khadim Gueye dañuy teew teewlu ay kàddoom ci micro Mohamed Diop Talla Samb ñun parents d'élèves ñuy ñaan gouvernement bi ak professeur yi ñu arrêté seen guerre bi ñu arrêté ko ñeent fukki fan ak juróom le temps que élèves yi def seen compo def seen i examen ku ci nekk nag ci biir ñeent fukki ak juróom gouvernement beeg jàngalekat yi ku ci nekk ah mu xoolaat stratégie bu 45 yu jeexee juróomi jee ñeent fukki ak juróom jeexe bu ñu toogee mën a waxtaan ba juboo ñu juboo bu ñu mën ta juboo itam ñu continuer seen guerre rek mais fekk na ñun au moins trêve bi dimbale nañu ba ñu kii parce que aussi mënuñ mais xam nga su dee guerre comme ñu koy wax léegi Irak xam nga ñoom dañuy wax ñett ñaari fan ñett léeg-léeg ñu dem ba juróom-ñetti fan xam nga lu tax ñuy wax loolu parce que dañ ne ñaari fan ñett doy na pour que camions yi indi garab yi médecins yi ñëw ñu indi dund bi xam la ñuy wax parce que seen problème mooy wér yaram ak dund bi ak faj ñi feebar mais ñun lan mooy suñu problème élèves yi àggale cours yi def seen compo def seen examen te loolu ñetti fan mënu ko régler fo faut cinq jours moo tax ma ne il nous faut cinq jours de trêve. gare routière bu Rufisque ubbiwaat na ay buntam ginnaaw fukki at yoo xamante ne dañu ko tëjoon comité de gestion ba léegi li mu bëgg moo di oto yépp dellu euh, ca gaar ba di fa yebee seeni client loole nag bëgg nañ kilifay gox ba jàppale leen ci ndax ab liggéey la bu ñu jàpp ne euh, du yomb dara ñu teewlu ci suñu ay nattango yu nekk foofule ca Rufisque di Ousseynou Thiam Bira Diagne gannaaw installation ak jël service lii di comité de gestion bu gare routière bu Tëngéej ñaan nañ nag oto yëpp wutali fële nga xam ne nii moom mooy gare routière boobu nga xam ne nii tëjoon na ci àpp bu yàgg li ni mel nag ki nga xam ne di njiitu comité de gestion bu yees bi nga xam ne nii daanaka door nañ liggéey bi. Euh, d'abord ñu gis ni amul woon sécurité parce que projecteurs yi tàkkul woon. ñu gis ni suñu mission mooy lan mooy fexe ba réhabiliter gare routière bi dugal oto yi ci biir orienter passagers yi citoyen ñoo dugg ci biir gaaru routière bi ñu fexe tam ba ñuy voyager mën a am oto yi ñu soxla à leur destination. nga juste bi nga ñëwee ñu ngi waxtaan di jàllale information di yëgal chauffeur yi eh, wax ko ci rajo yi que suba jeudi bëgg nañ oto yëpp rejoindre la gare routière def nañ tam tournée boo xam ne dañu wër garage yëpp mënuñu inviter les chauffeurs pour que ñu dugal seeni oto ci gare routière bi. képp koo xam ne danga bokk ci réseau départemental te nekkoon président garage yoroon garage ci biir dëkk bi te sa garage boobu de servir en dehors la commune dañ la invité d' yow nga jëkk a ñëw indi say oto kon dañ ko tàmbalee ci sunu bopp ba pare oto yi bu ñu jógee tee Dakar mais ñuy dugg ci gaaru cer bi di fa wàcce passager yi léegi su ko defee taxi yi di leen jëlee ci biir di leen ci biir dëkk bi. ngir nag wata yëpp war a mën a ñibbi nag ca gaa boobu ñii di responsable comité de gestion boobu nag jàpp ne il faut que nag ñii di autorités yi gunge leen ci lu ñu mel. vraiment autorité ci ñoom mënuñ ci ñàkk parce que ñun kese mënuñu ko euh, ñoom lañ ci yaakaar pour ñu jàppale ñu surtout monsieur le préfet ak euh, le commissaire ñu accompagner def liggéey boobu pour oto yëpp dugg ci biir. xañ na autorité locale li ñu mën a jàppale mooy euh, foo xam ne oto daan fa taxaw mu jël arrêté d'interdiction tere oto bi taxaw foofu. Fallou Samb ak ay ñoonam nag bëgg ñu yeesalaat bu baax baax baax lii di gare routière bu Tëngéej ngir nag redynamiser wàllu transport fii ci diwaanu Tëngéej jaajëfal ko moom mu Ousseynou am ni ñu ko waxee woon ci bopp xibaar yi tey di bés bu ñu jagleel archive yi ci àdduna wërngal képp fii ci Sénégal nag seetlu gi moo di ne ñuy génnee ca école de bibliothécaires archivistes ak documentalistes ay jafe-jafe dëgg moom la ñuy am eh, ngir rek eh, am ab xëy loole nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom moo jiite jamono ji EBAD di professeur Mamadou eh, Diarra li mu jàpp nag moo di ne entreprise yi war nañ cee jàpp bu baax a baax waaye nguur gi jàppale leen ci mbir moomu lee dañ ciy teewlu ab reportage bu Pape Farning. ñu bëri ñuy liggéey ci wàllu archive nag gannaaw bi nga xam ne am nañu seen i diplôme day jafe lool ñu am li nga xam ne moo nekk ab liggéey bu dee sax lu bëri ci ay entreprise ñu ngi daal di jël ñi nga xam ne ñoo nekk ndaw ñooñu ngir ay stage en principe waroon na yomb parce que liggéey archiviste ñuy wax ni dañu nekk ci société d'information donc comme ni ñu nekkee société d'information. archiviste dafa am solo si contribuer. mais archive même buñ ñu leen jël dañu leen soxla maanaam problème de de de de rek moo fi nekk waaye amul bés bu yet man bés bu yet ñu woo ma toujours wutal ma archiviste envoyé ma archive amul. lii di archive nag am na solo lool ci wàllu société ak mujjantalam rawatina ci yorin bu jaar yoon. archive mooy démbum dëkk archive mooy teyub dëkk ah boo xamee démbum dëkk teyub dëkk ah xam ëllëg dëkk. ëllëgu dëkk dina la yomb loolu nag archive moo ko mën. wan leen lu baax la ci ñoom parce que dina leen jox euh, élément de preuve dina leen jox rentabilité dina leen jox aussi euh, ay perspectives yu yu yu crédible quoi. yi nag umpale lii di liggéey archiviste étudiants yi ak enseignants yi nekk ca EHPAD nag ñoom jàpp nañu nguur gi moo war a mën a fexe baskan wi mën a xam bu baax liggéey archiviste. bañ a fulal sa archive euh, ñàkk xam la rek waaye ñi xam. dëkk yi ñu raw boo demee seen dëkk archive ni ñu leen fonkee fonkewuñ ko benn liggéey benn métier. Sénégalais yi moom xamuñu ko mais du si ñun parce que ñun ñu ngi def suñu droit ñu ngi def formation bu baax mais dirigeants yi ñoo war a dem gën a gën a gën gën a wane valoriser métier bi. ci bëccëg bi nga xam ne nag moom lañ jagleel mbiru archive étudiants yi nag seen xel ak seen xalaat moo nekk gannaaw bu ñu amee diplôme nan la def ba am liggéey ndax ñu bëri ci ñoom jàpp nañu entreprise sénégalais yi ñu lii di archive Pape Fara Gningue seetlu gi itam moo di ci biir entreprise de presse yi fulaa luñ ko lool lii di archive ba tax na nag ki nga xamante ne moom moo jiite association sénégalaise des bibliothécaires archivistes ak documentalistes na ne loolee du yoon ndax archive lu am solo la ni ñu ko waxee ci démb ak tey entreprise ba tax na jàpp nañ ne war nañ cee gëstu bu baax a baax gën koo jox itam gëdd Mame Biram Diouf lañ ci yàndal bërëbum tasum xibaar mel ni yeneen secteur mu mel ni nag ñooñu dañoo soxla lu leen di wane ak lay dundal liggéey ga ñuy def ndax seen ëllëg da sukkandiku professionnel bi dañu koy xamal. bu fekkee tamit dem nga ci archive audiovisuelle maanaam archive yi nekk ci euh, taskatu xibaar yi boobu encore dafa gën a bëri doole maanaam euh, teg ay jumtuwaay yu lay aaral sa archive yooyu dafa am solo te léegi nii xarala yu bees yi maanaam li ñuy waxee numérique. dafa gën a encore yokk doole archives yooyu. bu dee nag amoo ab service des archives boo xam ni dina am personnel qualifié ñaari liggéey bi dina ci am jafe-jafe. éléments yi ñuy am yëpp dinañ ko sauvegarder sur les disques. muy télé bi wala élément wu rajo bi ak euh, waa presse écrite bi li muy génne yëpp dinañ ko sauvegarder mais système bu évolué comme système archivage. bon defaguñ ko fii ce qui fait que parfois mën nga koo denc sax mais pour retrouver ko day xaw a gis léegi nit kese rek bu yoree téléphone portable rek ak carte mémoire rek mun na mun na mun na fexe am archive audiovisuelle bu doy waar. léegi nag xalaatal nag bu dee ab ab kuréel bu mag la wala ab ab ab maanaam ab makkaan bu mag boo xam ne loolay liggéeyam euh, léegi xalaatal loolu yëpp ñu ñu liggéey ci archive audiovisuelle lañ ko war a toppatoowee ba ba muñ ko aar ba mu am euh, ba ba mu mucc. am na ay banqaas yu bëri yu ci nekk donc il faut nga nekk koo xam ne dañ ko tàggat ci loolu tàggat la dañu la tàggat pour nga mën a toppatoo maanaam mbir yooyu. pour nga mën ko toppatoo ni mu waree. doxalin gi doon lu ñu war a topp euh, fii ci entreprise de presse bii nag ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax. ñoo ngi koy xalaat d'ailleurs parce que ñoo ngi regroupé suñu article quotidien bi yëpp pour que pour am benn système d'archivage boo xam ne dina ko mën a mettre la disponibilité. de suñu internet bu baax lépp luy donné ngir ga ëllëgee ñu mën kaa jëfandikoo ni mu waree loolee doon loo xam ni mboolem secteur war na ko am mu doon lu professionnel bi bëgg ñëpp amal. Mame Birame Diouf ñu koy jaajëfal professeur ni ñu ko gisee ci reportage yi mel nañu fii ci suñu réew ñu lool archive. fulaal nañ ko fulaaluñ ko Fatimata parce que suñu réew dëgg la. am na yu bari yu ñu waroon a def yu ñu defagut mais ñàkkul ay jéego na yuñ ci dox ndax fii ci Sénégal fii la dépôt d'archive bi gën a yaatu bi gën a rëy bi gën a ancien ci Afrique am archi direction archive nationale du Sénégal 2014 la ñu feete centenaire am téeméeri atam. donc moom avant indépendance mi ngi foon tubaab yee ko fi créé yoon bàyyee ñu ko. fii ci Sénégal aussi fii la école bi nga xam ne moo gën a rëy ci Afrique francophone au sud du Sahara ci la nekk muy école de bibliothécaire archives et documentaire yi nga xam ne tàggat na lopp juróomi junniy nit yu bokk ci fanweeri dëkk ak juróom benn ci à travers l'Afrique mais ay li yëwoon des na. des na gi moo di li ci gën a des moo di d'abord amuñu politique nationale d'archives. maanaam ni ñu waxee politique minière politique agricole naan autosuffisance alimentaire toogaguñu ñi war a wax yépp ñu déglu leen tënk loo xam ne dañuy wax ne fukki at yi ñu jëgmal ñaar fukki at yi lii la ñu bëgg ci archive ci réew mi ci administration publique au moins ñu ne juróomi at yu njëkk lii la ñu def juróomi at yi ci topp juróomi at yi ci topp juróomi at yi ci topp ñu toppante ñaareel bi moo di bu nu amee école bi gën a xarale ci Afrique nga xam ne tey ci tey bépp pays d' Afrique boo dem francophone bu nu bëggee former archiviste dañuy wax Dakar la ñu njëkk xalaat ba pare ñuy tàggat ay gone fii ci réew mi ñu génn dëpp fukki at au moins wala lu ko ëpp fukki gone yu ñu génne juróom-ñett yi du ñu am liggéey dafay dal lu nuru. justement parce que euh, bu ñu lu ñu toog nii te amuñu liggéey ndax loolu du wane itam ñu des nañ ko fulaal tuuti. mais des nañ ko fulaal parce que man fekk naa ay xele yu ñu tàggat ci ebaat ñu génn dem nekk policier dem nekk gendarme dem nekk garde pénitentiaire wala beneen métier yooyu yëpp ay métier la mais dafa am école yu ñu leen di tàggate pour ñu nekk ko bu ñuy tàggat ay nit pour ñu jël archive réew mi ñoŋal ko denc ko mais dañ ko war a fulaal parce que Fatma am na loo xam ne lii moo lay woon rek lii taxawaayu archive gis nga directeur tubaab francais bi mujj ci Sénégal moo doon directeur des archives nationales du Sénégal am nañ indépendance fukki at ak juróom-ñaar ab tubaab a yilif archives nationales du Sénégal fukki at ak juróom-ñaar 1977 la ñu nommé le premier sénégalais parce que tubaab yi comme ñoo fi nekkoon def fi archive yi ban signé indépendance jox ñu ko. Mhm. daf ci Sénégal ak France bi ñuy signé indépendance am na clause sur les archives nga xam ne kon ñoom joxoon nañ ko fulaal donc. loolu bu fi bu buñ ci jógee ba pare ñu dawal ñu mel na dañuy jox yëf yi fulla ba mu yàgg ñu reculer ci dafay dal di nuru leneen mais ay la at yi fan yi moom am na ci yaakaar a ngi ci ah. parce Sénégal néew na réew mooy dem ci àddina te jàkkaarlook bâtiment bu am waay ñu ne fii mooy direction des archives nationales nga dem ci région yi ñu ne fii mooy direction des archives régionales fii mooy direction des archives départementales Sénégal depuis l'indépendance amuñu archive nationale bâtiment fii jàkkaarloog tribunal bu bees bi fi la njëkkatu fondation yi ba mu jóg 1999 ñu bàyyi ko fondation yaa nga fa ba tey mais léegi bërki démb le 14 ci weer wi gis naa ci ab journal ñu ne gouvernement baa ngi laajte ay consultant pour tabax maison des archives nationales ak maison de la bibliothèque nationale. loolu ñun mu ngi commencé dal suñu xel waane nag ba nuy dugg ci métier mi ñaar fukki at ak nangam ñaar fukki at ba tey ñuy romb juróom-benn fukki at. ndax mu doon ay diggé rek. ak ah, bu dee diggé rek nag bu ca kanamee ñun mm-hmm. archivistes yi dafa am ñaari catégorie dafa am ñiy liggéey ci administration ak ñi mel ne ñun nekk université di jàngale. Mm-hmm. dinañ dem ci fi wax jote wax mais nag duñ ci sànnente xeer duñ ci wax wax ju bon mais dina daal wax li nga xam ne dina won nit ñi ne am réew mun mënta def développement bu amut archive yu baax mënta def transparence bu amut archive yu baax mënta def PSE gisa nga PSE bi bu amut archive yu baax yi ko sukkandiku PSE bi liñ ci séentu bu dee fukk juróom-benn ya mën nañ koo am peut-être wala ñeent mais duñ ko am lépp. ndax internet bi xaw ko gàllankoor tuuti. loolu erreur la boo xam ne nit ñoo ko def soo demee ci dictionnaire bi nga xam ne moom la archive si àddina bi yëpp man koo def ci ni ñu ni ñu gisee ñoom archive archive daf ne li ñu bind ci kayit li ñu filmer li ñu enregistré li ñu loolu lépp archive la donc internet ak papier nit ñi dañoo yaakaar ne dañoo jàmmaarloo di xeex or internet bi mm-hmm. suñ ko amee c'est parce que dañoo inventer papier y a des siècles derrière di inventé film inventé photo inventé ba internet ñëw dañu mën a jëkk lëkkaloo moo di fii ci eh, TFM bu ngeen di soxla dossier bu nu war a defar am na ci lu lu ñoŋ loo xam ne ci ay kayit lañ ko bind am na loo xam ne ci ay film la nekk. am na loo xam ne ci ay bande sonore la bu ñu dajalee lépp nag ci lañu ñu amee xel bi. or internet nit ñi dañoo defoon ne bu amee papier dootu am. or loolu nag erreur mënu koo gën a rëy parce que ñun archive yi ciy liggéey di ci jàngale di ci gëstu li ñu gis moo di fii ak ñi ngi créer di développer li ñuy wax technologie de l'information et de la communication archive papier day gën a bari. Mhm. li tax muy gën a bari moo di xam nga ñeent fukki at ci gannaaw photocopie amutoon. ñu jóge ci photocopie léegi imprimante laser am loolu day yombal defar papier li ngay li ngay def ci film. wala ci papier ci internet boo paree rek da ngay bës ci bouton bi rek mu daal koy tiiral ci imprimante day yokk papier yi mais bu fekkoon ne nag am nañ xalaat bu rafet boo xam ne day wax lii ci papier rek lay nekk lii ci internet rek lay nekk lii ci bande sonore rek lay nekk mais dina def système boo xam ne te loolu la ñuy jàngale soo gëstoo jëm ci loolu di nga gis li papier nekk ci papier gis li nekk ci internet bi gis li nekk ci film gis li nekk ci daal di jël lépp nag door dawal sam de presse yi ñoom ñu ne ci ay disque léeg-léeg ci ay machine ak yooyu la ñu koy def ndax loolu wóor na ak lan la leen mën a jur mais dañoo amul archiviste parce que amoon archiviste du ñu def loolu gis nga dafa am ñaari la fokk ñu denc ko mais damay wax ne exemple rek laa lay jox de façon précise gis nga euh, am na benn compagnie de presse bu rëy ci àddina ñu tudd CBS aux États-Unis hmm. am na journal bi gën a fës ci pays francophone muy Le Monde en France ñaari yooyu seen comité de rédaction ci biir ci service d'archive lañ koy tenire parce que bu ñu waree gëstu ci lenn war koo bind ci le monde bu ñëpp joxee seen xalaat ba pare xalaatu archiviste bi documentaliste moom la ñuy mujj jàpp ne kon war nañ ba mën a bind wala mënuñu cee bind parce que moo leen di wax am nañ ci ay données yu wóor yoo xam ne buñ ci bindee benn kenn duñu ŋàññ benn journal duñu bu ci bind duñu gën a rafet lim ci bind donc ñoom ci biir centre de documentation bi service de fa la ñuy toog bu ñuy def seen réunion de rédaction donc parce que su fekkoon ne archiviste maison de presse yi am nañ archiviste lu mel ne télévision Futurs Médias bi boo soxlaa ay éléments pour illustrer benn émission wala benn kii fi nga toog ci ordinateur bi ci sa bureau bala ngaa jóg war ngaa xam ci ban cassette la nekk. cassette boobu fan la nekk ci service bi boo jëlee cassette bi muy une heure de temps fan la ci toll bu dee ñaar fukki affaire lañ ci traité mooy juróom-benneeli affaire bi de la minute vingt à la minute 32. dafa am ay normes internationales de traitement de images de traitement des bandes de traitement des films te loolu archives dañ koy jàng journaliste bu ko jàngul nag mën ngaa enregistrer ci sa disquette teg mais boo amee ñetti disquette mën ngaa débrouiller téeméeri disquette mu commencé ju mais boo amee junniy disquette téeméeri junniy disquette ñaar fukki téeméeri junniy disquette dafay dal di jafe. Mm-hmm. loolu dafa am métier mm-hmm. gis nañu fan yee ñu génn ñu doon euh, toxal ay archives yu nekkoon building yóbbu ko beneen bërëb ndax euh, déplacement boobu yomboon na. yombul falaa jóge nii. muy journée international des archives directrice bi ak personnel am secrétaire général du gouvernement macha allah ñu leen féliciter di leen encourager parce que déménagement bi xam nga ñaata la woon Fatima fukki kilomètres ak doon déménager. xam nga bu ne ñuy tox rek nga jël sa ñaari carton def ci sa gannaaw oto yóbbu rangé mais fukki kilomètre ak juróom cest à foofu ci building. Mm. bu ñu tegoon benn carton di ko tegale en ligne droite mu romb Pikine ñu war ko déménager document bu fa gënoon a ancien 1817 ñu takkunu sol ay blouse jël ay cache ne def ci seen kii film nañ ko wane nañ film bu léegi di ko déménager pièce par pièce lañ koy déménager. parce que fi nga ko jëlee boo ko yóbboo danga ko war a teg foo xam ne fii na nga ko daan gisee. buñ ko laajee foo nga jógee fi nga ko jëmalee noonu nga koy gisee loolu opération la boo xam ne bii réew dina def téeméeri at wala lu ko ëpp ci archive te duñ ko def benn yoon France gii nga xam ne moo ñu jàngal lii ñuy jàngale ak kii benn yoon lañ ko def muy ci at yi ñu génn bi ñu tabaxee dépôt bu bees ci perfit war a jëlee li nekkoon Fontainebleau yóbbu ko fa mais am nañ fukki at di ko préparé. Sénégal ñaari at yi ñu tëj building archives si takk nañ seen ndigg góor góorlu ba jël la fa nekkoon lépp parce que bu fa jógee woon waxuma sénégalais yi. mais Afrique occidentale française moo ñuy ŋàññ parce que archive yi fa nekk am na ci 9 kilomètres yoo xam ne ñun ak Dahomey ak Haute-Volta ak Soudan Mali Côte d'Ivoire ñoo ko bokk ak Niger. réunion bii ñuy def tey le directeur des archives de la présidence de la République bu Niger ñëw na bokk si parce que archive 9 kilomètres ñu dañ koo bokk mais archive de su ko séddoo loolu si bokk na ci suñuy mode liggéey duñ ko séddoo. kenn du fa mu fa mu juddoo lañ koy bàyyi ku ko soxla fekk fa. donc waa Niger bu ñu soxlaa danañ ñëw fii wala ñu microfilmer leen yót leen wala ñu numériser leen yót leen. mënuñu koo jëlee fii mukk kenn du ko séddoo. du lu ñu séddoo donc loolu lu am njariñ la loo xam ne dañuy wax ne am na suñu benn mbokk jàngkat jàngalekatu archive bu daan wax ne bu ñu wax autosuffisance alimentaire élevage santé mu ne bu ngeen amul archive du ngeen ci àgg. Mm. or man lecture boobu laa am ci PSE bii ñuy wax man gëm naa ne ps e programme la baax na war naa mën a jëmale réew mi kanam mais bu ci ñëpp defee li ñu def te archiviste yi bokkuñu ci fan jëm duñ fa àgg. naka naka lañ ciy dugalee archive yi. ni leen ciy dugalee moo di secteur bu nu jël. bañ itam découragé ñu koy jàng. secteur bu nu jël dañuy wax ne lii lañ bëgg a def ci élevage mais boo bëggee def lii ci élevage di nga xam ñi la jiitu woon nag la defoon ci élevage loolu ci ay document la nekk. lii lañ war a def ci éducation lii lañ war a def ci santé lii lañ war a def ci ci ci ci ci ci lu ci nekk archiviste yi ñoo lay wax fii kat de 1900 ba fii ñu taxaw lii lañ ci jot a def. lii moo doon rëq-rëq yi lii lañ ci réussir lii lañ jotutoon a def nga door a segg nag yow parce que boo defee loo xam ne defoon nañ ko ba pare yàq nga xaalisu nit ñi parce que mënoon nga ko bañ a def boo defee loo xam ne ba na koo defee ka ko defoon njëkkoon def dafa defoon erreur. yàq nga xaalisu nit ñi or xaalis bi ñu koy defee ci réew mu bariwul doole. dañoo war bu ñuy defar bala ñoo defar mu wóor ñu ne dërëm bii ñuy dugal fii buñ ko fi dugalee rek mu jër mu jur dara. ni ko professeur waxee léegi sukkandiku ci démb ak tey ngir defar ëllëg. absolument Mmh. ñu koy jaajëfal bu baax a baax professeur Mbaye Thiam ci wuy si gim ñu wuy si ñu doon waxtaanee euh, wàllu archive tey ak bés bi nga xamante ne moom lañ ko jagleel ci àdduna wërngal këpp ñu koy jaajëfal euh, ci wuy si bi wax ci euh, askanu Kolda foofe nag li ñu fa nemmeeku moo di ne téeméer yoo jël ñeent fukki yekk juróom-ñeent daal ñoo mën a jot ci ndox mu sell mi mu doon gàllankoor dëgg ci ñenn ñi nga xamante ne ñu nga dëkk foofulee ca diwaanu Fulaadu ay jafe-jafe moom la ñuy ngir jot ci ndox mu mu sell mi Caritas Sénégal taxaw ngir rek jàppale yooyu les gox ànd ceeg USAID ak ay programme yu am solo ñu teewlu ci suñu correspondant Abdoulaye Diallo. ak ndoxu taw yu ëpp junni millimètre par at Kolda ëmb na ay avantages yu bëri ci wàllu ndox donte yooyu avantage askan wi jot ci ndox mu sell daa neew lool ci biir Fuladu ci téeméer nit yu ne ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñooy jot ci ndox mu sell. moo waral jot ci ndox bi ni mel ay jafe-jafe yu tar ngir wàññi yooyu jafe-jafe Caritas Sénégal mi lëkkaloo ak USAID moo fi amal ab projet ci wàllu ndox ak ci wàllu cet ngir askan yi ci kaw gi. Euh, waasaare bi ci bi ñu demee euh, ba toog gis seen jafe-jafe ndox te am nañu seen dëkk euh, jumtuwaay bi leen nguur gi defal toog ay fukki at. nit ñi mënuñ koo jëfandikoo ngir am ndox li waral loolu loolu la ñu njëkk a gëstu ba xam problème bi fa mu nekk donc ànd ak nit ñi ñaax leen organiser leen ci kuréel bu ñuy ne ASIFOR euh, defal leen tamit ay formation mooy tàggat leen ba ñu am capacité yi leen di permettre ñu mën a euh, liggéeyloo euh, forage bi ba tey ñaar fukki dëkk ak ñaar fi ñu toll am nañu ndox. teraline bi ni mel daa ñëw dooleel wàllu OMD yi nguurum Sénégal nas ci wàllu ndox ak ci wàllu cet. projet bi nga xamante ne USAID Sénégal moo ko moo ko financé ci euh, lu tollu un milliard de francs CFA ci ñetti commune rurale yi nga xamante ñoo nekk fii Sénégal donc gis nañu li nga xamante ne moom la waa Caritas Caritas présenté gis nañu jéego yi nga xamante ne def nañ ko fi ci surtout ci biir euh, commune de Saré Bidji plus de 7000 personnes am nañu ndox euh, ci commune de Saré bi boobu projet bi yegg ci cappaandaw ga moo sabab ab ndaje ngir càmbar liñ fa jot a amal ak lépp liñ fa digle waa hydraulique rural daal di ko def seeni moomeel ca Thiès moom lu toll ci juróom fukk kuréel yoo mbay soxna ñoo fa daje doon waxtaanee seen nekkin ci wàllu politique ay itam lu ñu fas yéene euh, duggal seen loxo ci PSE plan Sénégal émergent yooyu le euh, soxna ci ndaje bu yaa euh, bu ñu amal foofule ca capitale du rail ñu teewlu ci suñu ay correspondant Cheikh Anta Diop Seylatir ñi ngi jóge woon ci diwaan yu bëri ci réewum Sénégal di ay soxna yoo xamante ne ci ay kuréel yu bëri la ñu jógee yëngu ci wàllu politique lu jëm ci wàllu koom ñoom ñëpp kon fii ci diwaanub cees ci salle bu mag bii du centre culturel amal ab assemblée générale doon tab nag seen plateforme plateforme bii di ay jigéen yu duppee seen bopp ànd yëgoo soxna yi nee nañ dañoo bëgg a dugal seen loxo ci doxalinu réew mi lu jëm nag ci wàllu koom fexe nag ba jigéeni réew mi nag mën ci gis seen bopp. kuréel gi ñuy wax plateforme des femmes ànd jéego mu lëkkale kuréel yu bari lenn rek a leen boole ñu ne dañuy lëkkale seen doole ndax boo seetloo kuréel gu ne ca pàcc ba mu ne mi ngi ciy yëngu waaye dañu wala ñaar mbooloo ko ko dàq te boo gisee ñu ñëpp ñu mën a jaxasoo booloo nekk benn li ñu yitteel mooy bokk ci li nga xam ne dina indi koom ci biir réew mi. lu jëm nag ci wàllu wér yaram nag bëgg nañ cee taxawu soxla yi lool amal nañu sax ak kuréel goo xamante ne dinañ yëngu lu jëm nag ci wàllu mutuelle de santé ngir fexe nag ba jigéen ñi man di faju te lu ñu fay lu bari. ci wàllu couverture maladie universelle taxawal mutuelle de santé boo xam ne junniy nit danañ ci bokk. te mutuelle bi wax dëgg yàlla bu ñuy waxal rek fii mbir mi soqe ko mooy kenn ci suñu membre yi ku bokk ci ñun doomam feebar mais prise en charge bi xaw a yéex ba suñu borom jël ko mu metti ñu lool ñu ne dinañ taxaw ndax kuréel gi dafa ne solidarité solidarité boobu ñu wax ñu bëgg ko jëmmal ci jaarale ko ci mutuelle bi. ndaje mi nag jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu soldats yi di forces armées Augustin Tine teewe woon na ko ñaax na jigéen ñi. ñu ngi leen di souhaiter plein succès ci li ngeen engagé tey président de la république joxe na décision ñun nag aussi lépp liñ ci mën incha allah. dinañ ko def. di soxna yoo xamante ni nee nañ sax dinañ laxasaayu gën a jàppale njiitu réew mi ci programme bi mun na sër muy plan Sénégal émergent. tàggat yaram basketball ak juróom-ñaareelu journée playoff yi ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jigéen ñi AS Ville de Dakar moom moo dóor euh, Saint-Louis basket club 65 à 60 mu nekkoon nag match bu metti ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa euh, Saint-Louis basket club ak waa AS Ville de Dakar ci ñaareelu mi-temps bi nag daanaka lépp fala am waaye nag doonoon na match bu metti ñu ànd ceeg compte rendu bu Cheikh Sadibou Diarra Cheikh Tidiane John Younous Diatta AS Ville de Dakar daal di dóor ñii di waa Saint-Louis basket club juróom benn fukk ak juróom ci ay poñ su dee waa Saint-Louis ñoom jot nañu am juróom benn fukk victoire bi ni mel soo gisee ñoom ñoo am ko kii di Ndeye seen moom moo ko waral. parce moom argument argument la ku nekk ak sa sa pexe parce que ci benn benn moment Ndeye Sène ak euh, xale yi. trouvé nañ ay solution yu mën a génne ci defet lañu jógee c'est vrai moo tax tey euh, amoon nañu tuuti nervosité mais xale yi joueurs yi vraiment def nañu lu ñu war def pour gagner match bi parce que il fallait gagner pour le pour malgré la défaite la victoire je pense que Saint-Louis est encore devant nous d'un point donc c'est à nous maintenant de de bien préparer les demi-finales. su dee waa Saint-Louis basket club ñoom lii di ay naqar daanaka moom la ëpp ëppalee. département axial bi lañ doon bañ. ñoom dañ ko réussir donc suñu pivot suñu génnee aide rek dañuy bàyyi bal bi ci suuf maintenant rotation bi lañ du respecté raison pour laquelle on a pris beaucoup de paniers dessus maintenant il faut que ñu évaluer rek après ñu ñu liggéeyaat continuer liggéey entraîner jeudi vendredi samedi nga joué waat donc il va il va ñu xoolaat programmation bi aussi c' un peu dur nous on fait nangam kilomètres aller retour xam nga dafay xaw a métti mais maintenant mënuñu si dara à défaut nul n'est tenu nañ ko accepté rek gën a liggéey. ñaari équipe yi daal di qualifié lii di demi-finale play off yi kii di AS Ville de ak Saint-Louis Basket Club ñoom sax ñoom ñoo toppante kii di ñaareel ki ci topp bi ñetteel ñoom seeni poñ kenn ki am lu toll ci fanweer ka ca am fanweer ak benn ci ay poñ. ci eh, juróom ñaareelu journée boobu lee la ñuy des wax ci DUC mi nga xamante ne moom moo des di nekk ba tey ci bopp classement bi donte nag démb seen digganteeg UGB metti woon na lool match ba demoon na eh, ba ci prolongation yi ñu mujj leen dóor 72 à 63 loolee ngir rek eh, des ci bopp classement bi meneuse DUC bi di maam Jojo Diouf daal ne expérience bi moom moo feeñ ci boobu lee match dañuy teewul ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra woon na parce que euh, ku xam UGB xam ne équipe bu jeune la équipe bu mën basket la aussi donc euh, nekkul woon lu yomb et puis voilà li ñu si génne mooy peut suñu concentration et suñu expérience et puis douze joueurs yoo xamante ne koo dugal mën na si génne. match match yëpp du yomb match Saint-Louis ville de Dakar Jaraaf tout lépp du yomb donc dañuy essayer jël match par match donc xam nañ ni des championnat bi moo metti parce que ay match coupe moo des donc voilà xam nañ am nañ équipe bi am nañu am nañu am nañ dirigeant yi am nañ lépp donc dañuy essayer jël match yi match par match on ci équipe nationale bu basket la ñuy wax ak tournoi de qualification olympique bi nga xamante ne ñu ngi koy waajal américain bi ñu ci woolu di Clevin Hana moom nag li mu xamle moo di ne euh, fas na yéene wone boppam ci euh, tanière bi ndax li ko indi fii euh, moo di fexe daal ba yóbbu équipe bi fu sori marqué ay panier nag moom nee na aay na ci lool ñu teewlooy kàddoom ci micro Mamadou Fall. ay weer a ngi nii fédération sénégalaise di jël ko moom Porfirio Fisac bu Diego tey jii nag lañ ko présenté fédération bee ko présenté moom ci boppam nag muy xamle lu mu namm ci basket bu Sénégal. c'est ñuy jégalu bu baax a baax ci élément boobu nekkoon conférence de presse bu entraîneur bu gaynde yi amoon nañu yéene nag euh, tegal leen ki nga xamante ne moom moo bees euh, ci tanière bi waaye nag euh, xam naa ci suñu yeneen jotaay xibaar lay doon ponk bu mujj bi li ci yéene kaay yi làkk Mamadou Mohamed Ndiaye. xaalis bàjjo bi moom la l'observateur xëye tey koppar yu ne gàññ ci xëtamu njëkk téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ak juróom yi ñu natt teg a doxee ci budget national bi fan la jóge l'observateur nañu téeméeri milliards yi waa Sonatel ñoo ko joxe joxe ma nga bawoo ci contrat 4C bi fanweeri milliards ak juróom yi impôt ñeent fukki milliards yi jugee ci li ñu naan recette exceptionnelle budget national bi yéen a bi nañu ci gën a moo di jàngalekat yi wàllu kaaraange ak projet yu jam ñaajo projet yi ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru am na ci boo xamante ne ji libération nee nañu njuuj njaaj gu rëy moo ci am ubbi leen journal bi centre de mesure ba ñu war a tabax ci université ba marché lycée yi ci loo xam ne kenn yëgul kenn tiinul recteur bu bees ba ci université bi mu yegsee doon laaj autorisation waa ARMP waa ARMP ca DCMP la ñu ko yebal taraawooye la ñu ko waroon a joxe waaye ba fi mu nekk ni genn wàll ga rek la ñu def lu def waxu lu ay di njàmbat wàllu terrorisme gi tere nelaw réew yu bëri ci àdduna bi témoigne Walfadjri populaire ak enquête xëy nañu ci li ñu xëye moo di rapport bu bàyyeekoo ci département d'état bu Amérique jëm ci suñu réew di Sénégal ak matuwaay yi mu teg ngir fàggu wàllu terrorisme le témoigne nañu ci matuwaay yi Sénégal teg ngir di xeex terrorisme américains yi gis nañu ci ñetti rëq-rëq yoo xam ne mën na jural réew mi ay jafe-jafe populaire nañu américains yaa ngay càmbar kaarangek réew mi wal fajir nañu coow lu bari lekkal kër yi kilifa yi réew mi nekkee ngir ne dañuy fàggu wàllu terrorisme ndekete terewul doxin yu bari na ay rëq-rëq yu ci am rapport bu américain boo bekk ñi ñu jox xar bi baaraamam tuuma ne ñoo doxalul doxle wuñu journal bi nañu renseignement généraux yi ci réew mi la waa police waa gendarmerie ak waa douane américains nee nañu seen liggéey des na enquête dina kay nañu américains yi lim nañu benn benn fi suñu réew di Sénégal dese ak xerañ ci wàllu xeex terrorisme la Sénégal nañu feneen ngi foo xam ne it ak kaarange tumuranke na fa lool mu di ci aéroport Léopold Sédar Senghor li koy gën a firndeel mu nañu mooy waa ji ñu fekk mu dee ci porte bagage sub avion Bruxelles Airlines bërki démb tey la Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur ak sécurité publique di daje ak parti politique yi ngir dialogue politique bi ubbi leen observateur fa la xibaar ba nekk mbirum code ak fichier électoral bi lañ fa fas yéene waxtaane le quotidien nañu ca waxtaan yooyee gile yoon ku yóbbu seen tucca Idrissa Seck Pape dialogue politique ba ki ci dul bokk mi ngi ci la tribune mu di El Hadj Malick Gakou moom Gakou moo xëy di waxtaan ak journaliste la tribune yi nee na leen dialogue national bi fi président Macky Sall woote woon du mujj fu baax ndax na mu tàmbalee baaxul njiital parti socialiste def na ba mu baax ci grand place mu di Ousmane Tanor Dieng moo ki mbokkam di waa parti socialiste leeral nañ ne élection législative yi ñu dëtmal ci réew mi bu ñu ca yeggee tey parti socialiste la cay àndal a may gisuñu ci daray politique yéen a kaay bi nañu waaye ñi ci gis lu raw politique nag moo di waa UNIS di union des nationales indépendants ne ñoom démb ab janok taskatu xabaar yi la gonte woon ngir di ca ñaawlu ak jébaane bàyyi gi ñu bëgg bàyyi Karim Wade nee nañu ak ragal ak guyaafus weesuwul toog di xoolee di seetaan Macky muy génne Karim Wade ci kaso bi keneen a ngi koo xam ne soriwul kaso dara mi ngi ci xët mu ñu ko enquête mu di président naan athlétisme cour d'appel bu Paris da koo débouté moom Lamine Diack bu dee lu soxal doom ja na ba neexul waaye doomi Falaye bu ndaw dafa mel ne ba génn ci rek duggaat ca beneen tax journal bi xëy ko tuddee un champion à ko fi juróom-ñeenti weer ndax jaan juñ ko doon tere mu indi na fi ak guy gi na fi ak takk der ba dem ca kaso li mu mujjee def nag ne ak tooxi doona moom Ama Balde moo di jàppante ak Marley ba ñu ajaat ko juróom-benni weer mag ji di Sil Balde nañu ci xët mu njëkku yéenekaay bi ñu ko def mënuñu bu ñu manoon dañuy aj Ama Balde ngiiru dundam jaajëfal ko moom moom Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it naka noonu ci teewlu bi fii lañ yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi rédaction bi dina fi teewaat 19h ak 20h lay doon ak yeneen i xibaar laata loolu ñu bàyyi leen ak programme bu Télé Futurs Médias ñaanal leen it kenn dalu jàmm